c'est Al Haïbou TV la télé qui te à réfléchir télé bi moo lay xalaat loo Al Haïbou TV. jubal suñuy xam ñi jiite wala ñi jiite euh, diine ji yàlla def ci ñoom maandu jub ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ñu ànd ngir. jariñ askan wi bañ a kompaloo ngir jariñoo askan wi ndax du leen jig duñu jig yàlla nu yàlla xiir ci eh, lu baax ci barke sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu diine suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam alaxira kon ñu ngi doon wax ci mbir mu am solo muy waqf nga xam ni mooy lan mooy jël alal eh, loo xam ni dangay eh, jël jëmm jë sarax ko communauté bi mais njariñ lii rek ngay joxe yow dangay jël euh, maanaam jëmmi loola dafay tege kenn du ko moom waaye la nga xamante ni moo ciy jóge moom ngay saraxe loolu waqf yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan moo ci jëkk moo ci jëkk a ñaaxe lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun yàlla nee na na xam ni maanaam tuyaabay àllaaxira dëgg dëgg dëgg su ngeen ko bëggee dee leen joxe li ngeen soxla waaw nee na tuyaabay alaaxira su fekkee moom ngeen soxla dëgg-dëgg dee leen joxe lu ngeen soxla waaw waaye jëlloo saxlaatul jox jox yàlla boo sàggantul li doo fa fekk lu bari de waaw du ne doo fekk dara de waaye doo fekk lu la amal njariñ de waaye nee na bala nga fa fekk alaaxira lu la amal njariñ dëkk nga génne loo xam ni mi ngi koy génne sa xol a ngi di siisu yonent bi daf ci encouragé ci Omar Omar ci azootu Xaybar bi ñu demee xaybar xam nga butin bi maanaam bu ñu demee guerre bu ñu lañ fa jële dañ koy xaaj juróomi xaaj benn xaaj bi dañ koy dugal ci. Euh, mooy lu gën lu ma ci def sama alal ah yonent bi ne ko def ko waqf waaw def ko waqf Omar daal di jël terrain bi def ko wax loolu day dëggal aaya bi li yonent bi ne woon lan tanaalul birra li yàlla ni lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun moom joxe na lu mu gën a bëgg waaw ñaareel bi yonent bi ni ko def ko waqf kon fu nekk na jaamu yàlla bu mag parce que sadaqa jaariya lay doon maanaam tuyaaba joo xam ni boo ko fa bàyyee da ngay faatu muy continuer di la fekk si ci bàmmeel moo tax loolu war nañ ci encourager jullit yi bu baax a baax ndax li ma waxoon démb mooy day faj problème mu su maanaam su euh, maanaam problème sociaux yi ñu am yëpp da ko mën na ko cee faj ñàkk geeg chômage beeg yooyu ñëpp waqf mën na koo mën na koo régler waaye non seulement loolu mais nag fexe bu jullit bi di dabaatal alaxiraam ndax fi mu ne léegi adduna bi ëlëm nañu topp waaw te nit ñaa ngay dem ca sëg yi di dugg ci biir bàmmeel yi waaw di fi bàyyi seeni alal nag ñun ñëpp ñuy teg suñu ba yàlla lu yàlla teg ci salaatu mustaqim asalaamaaleykum wa rahmatullah